diggante Sadio Mané ak ki nga xamante ni Leroy Sané ñoom ñaar ñu ngi doon ay footballeur euh, yuy football fële ca Bayern de Munich en Allemagne léegi nag dafa am benn vraiment jafe-jafe bu doon bu dox seen diggante euh, ba Sadio maane jot ko dóor mhm. selon les informations ñu am journal Bild moo ko njëkk a génnee nekk fële ca Allemagne nee na Sadio Mané dafa dóor ki nga xamante mooy mooy Leroy Sané mhm. euh, ginnaaw bi ñu perdre seen match boobu noonu en Ligue des Champions mardi contre Manchester City sur le score de 3 buts à score boo xam ne fleuve la quand même pour équipe bu mag bu toll ni Bayern na donc muy indi ay jafe-jafe mais gisoon nañ déjà jafe-jafe bi en seen entre ñoom ñaar mais jafe-jafe yi daa continuer ba si biir vestiaire bi am na d' euh, abord dañ ko euh, dañu excuser wu publiquement euh, ñu excuser wu à l' entraînement am na sanction boo xam ne dal na si ko am samedi bii dañu Bayern na mi war a football contre contre xaw ma xaw ma Hoffenheim Offiana bi muy joué nag euh, Sadio maane du jël euh, du jël parti foofu dañ ko suspendre. Mhm. donc pour sanctionner ko donc yéen lan ngeen xalaat si sunu gaynde boobu noonu nga xam ne mooy Sadio mhm. euh, vraiment gàllankoor yooyu noonu topp ko voilà. fële mhm. waaw xam nga man li ma ciy wax mooy déjà xam nga ñun tamit li olof di wax ni nit ku sa mbokk nga am. wax dëgg yàlla bu sa mbokk di xeex da nga koy sadle ba pare nga doog ngay wax ni nag juum nga wala lii. nga Sadio Mané. <laughs> sa mbokk la sa mbokk la sunu mbokk la parce que Sadio Mané Séné sénégalais la comprendre nga. fii la euh, ki tamit sénégalais la. ah xam. di fàttali xamoo ne sax Sané fàttali rek di fàttali di fàttali Sané boobu le roi Sané. Mhm. doomu Souleymane Sané la. ancien footballeur ah. sénégalais. joué naa <laughs> à ce point yëguma ah. kon nag loolu beneen jàngat lañ ciy def. Mhm. jàngat bi ñu ciy def mooy sénégalais. Mhm. ak moroomu sénégalais am dañu yàgg di xeex. mais kii allemand la nag quoi dafa jël nationalité allemande. waaw dafa jël ah, al waaw yéen kon ki ngeen wax yéen kon fan la bokk. parce que <laughs> tey sénégalais suba allemand la. Leroy oh, seex seex mm-hmm. eh. nit ku ne. Mm-hmm. dëkk ba nga bokk këyit ya nga am moo la fa boole. Mm-hmm. sénégalais boo fi juddoo yaroo fi màgge fi te amoo benn këyitu sénégalais ku la boole ci sénégalais da lay tooñ. nit ku ne daal man li ma lay jàppe ne fa nga bokk mooy kayit yu ñu boolee ni ku ca am ci réew mi nga am kayitu judd ci réew mi mm-hmm. am carte ci réew mi yaa ngi dégg am passeport réew mi mm-hmm. ñu boole la ci doomi réew mi mm-hmm. amoo carte réew mi amoo carte euh, lu ñuy wax daray kayitu bu xam ne moo la boole ci réew mi mënuma la man boole ci réew mi mën na nag aadaam ak cosaan boole ko ci mais ci wàllum kayit mënuma ko boole ci réew mais nag Sadio Mané daal man ku mu tooñ ak ku ko tooñ. man saajo laa àndal ak ku man Sadio laa àndal. <laughs> lam ko wax nag ba Sadio dóor ko. Mhm. su ko wax woon du ko dóor. ndax Sadio Mané jour la boo xam ne yaru na. Mhm. am na respect. Mhm. te Sadio Mané ba ma koy xam ba tey c'est la première fois ma dégg. saajo maane def na naka su dul noonu. nit nag nit rek la. Sadio Mané du jinne du malaayika du waliyu dara doomi aadama day fubal xolam day neex day naqadi mm-hmm. waaye nekk ci terrain di fubal ak sa nawle bokk ak moom benn équipe defet am wala problème am mu jël loolu yëpp yenn la ko du la neex mm-hmm. kon nag man maa ngi supporter Sadio maane maa ngi ci ginnaaw Sadio Mané. Mhm, parce que parce que il il paraît que sax euh, am na ñuy wax ni daf ko daf ko daf ko traité de salle noire alors loolu tamit bu fekkee ne loolu. moo am yow waaw vraiment yow sa papa di noir noir jur la nga tiim noir kooku c'est un complexe bu fekkee ne noonu la demee. vraiment noonu la demee sax parce que kooku bi ma déggee bi ngeen nee nationalité amul bu sénégalee rek loolu confirmé ne ni moom. Mhm. parce que man joueurs yi ma xam yépp ñu juddoo bitim réew. Mhm. dañuy rayante bu nekkee ci football. ñu ci bare dul sax nangu jël ay nationalité parce dañuy xalaat seen ëllëg seen réew mm-hmm. comme moom dem na jël yeneen nationalité man ànduma ak moom ah. xamoo ci moom leen man daal na jàll ca xaj na jàll ca xaj kay. donc ngi mi ngi noonu kon euh, li ñu ciy wax rek mooy yenn aussi si ay anciens internationaux. Mhm. génn nañu di di soutenir Sadio Mané comme ni nga ko defee gis nañu ko si mel ni si Kamara génn na moom def vidéo vraiment soutenir di wax Sadio Mané que ni moom mu ngi ci ginnaawam ni mhm. Sénégalais yëpp nekkee ci ginnaawam ak peu importe les raisons ak lu fa lu fa mënti xew. ñu jëntiwuñ ko may vraiment ñu ngi soutenir ki nga xamante ne mooy euh, Sadio Mané euh, Euh, bien vrai que nag euh, violence moom kenn kenn du ko kenn ko soutenir kenn du ko cautionner mais nag euh, bu fekkee ne tamit am na loo xamante ne wax nañ la ko mu metti la nit moom nit rek na. mais foofu la violence njëkkee xam nga violence gis nga Sénégal mm-hmm. Afrique dañu war a mm-hmm. lu ni nii rek ñu ni non violence mm-hmm. violence gis nga nit am na loo ko def rek saag nga ko ndey nit am na looy wax ak moom violence la nit violence dafa bare ay ay ay ay kii violence no nit mun nga ko bañ a wax dara nii mun nga ko bañ a soo mm. mun nga ko bañ a wax dara mais am na yenn réaction yoo xam ne soo ko defee nit rek mm-hmm. yow da ko yow def nga violence ci kaw nit ki dañu war a bàyyi que violence dóor la wala lii mm-hmm. ah bare dafa bare ay façon mm-hmm. Sadio daal xoolal ku la fontoon na ko ñaf xiir gi ah yow kon bu baax <laughs> Ah, waaw juste di rebondir ah, donc di wax euh, donc euh, Sadio Mané euh, quand même dafa dafa nekk di dund benn année bu xaw a délicate. parce que mi ca voilà ca Allemagne. Mhm. donc raté na déjà coupe du monde bi nga xamante ni mujjul dem.

ñu indi ki nga xamante ni mooy Thomas Tuchel euh, mais bi mu ñëwee ba léegi Sadio Mané mu football bëriwul keroog sax match bi ñu leen dóor mhm. euh, euh, vingt dernières minutes presque la dugg li mu joué si match bi bëriwul mais si biir match bi déjà gis nañu tension bu bu dox diggante moom ak Leroy Sané Leroy Sané tey si misaal Sadio Mané nag mën nañ ko ne lu ko dal benn yoon da koy dalaat waaw dafa njëg jigéen parce que en fait déjà ba mu nekkee fële ca Liverpool dañ doon jooy Mohamed Salah mhm. Salah mooy égyptien boobu noonu nga xamante ne ñëwoon na fi Dakar football ñun gars yi laser ko mhm. euh, donc Salah daawul paas Sadio Mané benn jour sax am na benn xuloo bu Sadio Mané am nga moom ba seen entraîneur moo si dugg euh, mu dem rek Allemagne le roi Sané tamit euh, mooy mooy Salah numéro 2 maanaam moom du pas Sadio Mané. day ñaan rek yu bëgg a dóor bëgg a lijjanti match moom kese. te Sadio Mané aussi joueur la boo xamante ni aussi. grand joueur la te grand mm. joueur dafa mérité ñu ko respect. Mm. déjà ci terrain bi match boobu mu ko doon manqué respect. Mm. te xam naa loolu moo poursuivre. dem ba si vestiaire yi donc euh, di commencer di ko saaga di ko wax par exemple sale noir genre yooyu. loolu euh, am na koo koy wax. peut-être ku dëkk mais ku ku màggee fii Sénégal xoslu fii dem ba fële. moom moom mooy sale noir mais Euh, doomu noir mooy saaga noir donc un peu c'est un peu bizarre doomu ah, Souleymane Sané doomu Souleymane Sané bu saaga noir quand même hmm. euh, dafa mel ni saaga na boppam Souleymane Sané ak jaloor yi nga xam ne def na ko équipe nationale quand même hmm. ak temps ñoom Jules François Bocandé et kooku doomam bu demee bay am euh, yenn comportement yi c'est vraiment regrettable hmm. vraiment donc ñun li ñu gëm mooy lépp lu ko mën ni booleeg saajo maane ñun position lu ñuy jël suñu position dafa tranché mooy jàppale Sadio Mané Sadio Mané moo tooñ tooñul moom lañu jàppale donc jusqu'à preuve que ñun en tout cas ñun suñu Sadio ah, ah, vraiment ñun waaw mooy suñu xarit indil nañu coupe d'Afrique mhm. yóbbu ñu coupe du monde ah, dafa ñu ay jaloore ñun Sadio instant bi ba pare teg joxe ceeb joxe diwlin teg gars yi di laaj ay troisième mandat sax rek li mu yi koy laaj sax dama yaakaar ne Sadio Mané sax moo war a ñëw laaj mandat nag. waaw Sadio Mané war nañu ko mën a dénk réew mi. waaw waaw ah, jullite na yaru na. kon dañu dénk bu ah. mën waaw wax dëgg yàlla waaw su te sénégalais yi loolu leen intéressé nag. te gëm naa ne su boobaa weer bu dee weer bu dee naa naa wutal benn salaire daggal la ko jox la ko moom gëm naa ko moom. ah Sadio Mané bu baax <laughs> kon nan ko jox réew mi <laughs> nañ ko jox réew mi troisième mandat daal mën nañ ko mën nañ ko jox mu dem donc euh, ñu